to ngeen ko xamee rek sama Lamine mbokk yi ñuy suivre ci Leewtoo TV ak Lutte TV point com ah, di ko xamee nag dañu demoon jëban presse bi mais jaxaso bi dafa bëri ba image yi mënta leer ci Lamine ak Talla Ndiaye comme ñun nag 100 pour cent lamb la duñ bàyyi moo tax ñu topp Gris ba fekk ko ci roq fas yéene nag gën leen a jox image yu gën a leer parce que internet yi loolu lañ soxla mbëri ñu ngi lay ziar. waaw maa ngi di fay waa Leewtoo ak waa Lutte TV waaw di leen bu baax di leen masawu coono tey waaw di masawu coono tamit waa Médina bu baax a baax Fass Colobane Gueule Tapée Centenaire Sibirata Taal Rebeuss nga xamante ne saa yi ñu jugee rek ñoom ñëpp ñu jug waaw di leen remercier bu baax a baax a baax. mais fiñ la fekk dafa mel dañ fi fekk tamit ay soxna parce que ñun moom duñ bàyyi faw ñu am lu leer ñu fi fekk ñan la ak loo seq ak ñoom. waaw fii sunu ay kilifa sunu ay sœur sunu ay mag délégation bu Cheikh Ahmed Tidiane Ba TAB. CATB waaw ñoom tey nga fekk sunu sœur jiite ko Bigué Diène am nañ dana moom turandoo mi ngi suñu biir kër waaw nga xamante ne c'est la famille daal doom ci alaaji amee jën rahmatullahi alayhi sunu grand yi ñoom Pape Malick Baba Diagne nga xamante ne saa yu ñu amee bis yu mel nii rek ñoom ñu ngi ci Bigué mu ngi est que duñ dem ci Bigué Lamine yaag taal ba pare quoi kon soxna bi ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di fay. waaw am jàmm. maa ngi am jàmm bu bari bari. dégg nañ mbër mi ne na Cheikh Tidiane ba moo leen fi yebal ah. Mm, directeur impôt domaine du noonu la demee. général ah? yaa ma ko gën a xam sax waxal. waaw directeur général impôt et domaine Cheikh Ahmed Tidiane Ba waa muy suñu leader politique ci si biir Médina di jiite CATB cellule d' pour le triomphe de Benno. ñëw fi nag tey ñu def délégation bu forte macha allah ñëw wuy si suñu rakk euh, Maodo muy Gris ñu kontaan ci lool ndax kër gi euh, sama kër la waa dama fi ñëwee ñaari fànn muy fànnu sër ak fànnu taxawaayu politique di responsable de zone ci politique ci CATB représenté fi Cheikh Ahmed Tidiane Ba. mbër mi tey mu jëm si combat samedi yéen ngeen nekk ay doomu Medina. jàppale bi ci ban fan fànn ngeen koy jàppale pour combat bi mu jëm. Euh, moom niñ koy jàppale mooy doom la benn muy doomu Medina nekk xale bu yaru xale bu am yar xale bu gëm boppam macha allah topp ci gannaaw magam muy gri gri 1 macha allah liggéey fi liggéey bu rafet tette rakkam ba tey rakkam xewle muy samedi prochain taxawaay bi ci Cheikh Ahmed Tidiane ba war a taxaw loolu suñu diggante ak moom la te incha allah Cheikh dina ko jàppale bu baax parce que Cheikh ci lan lay dox ci social social rek lay dox ci biir Médina di dimbali nit ñi di jàppale nit ñi di jàppale ay mbokkam di jàppale doomu Médina di jàppale ku dul mbokkam tamit donc kon man bu fekkente ne superviseur de zone laa nekk fii représenté CATB donc mu yabal ma tey pour ma ñëw pour saafonte ak moom mii mu wax ay bëgg-bëggam macha allah li nga xam ne moom lañ bëgg ñu taxawa taxawaay bi ñu war a taxawee ñun waa bi ci combat bi loolu mooy suñu jotaay tey incha allah. taxawaay bi de xanaa promoteur bi moom li mu ciy gën a soxla mooy côté mobilisation ak billets yi ñaata million ngeen di génne pour wàllum ticket. ah waaw loolu nag du waxu micro du dëgg. <laughs> dañoo bëgg a xam xam ñun moom lu leer la ñuy wër ñun. waaw lu leer lañuy ñuy wër comme que nag ñun dañuy tàllal suñu loxo rek suñu leader moom day tàllal ay loxoom. ndax am na ay nitam am ay partenaire am am ñu koy jàppale macha allah donc ñun dañuy tàllal suñu loxo ñooñu luñ ñu jox rek ñu ñoo jox ko suñu rakk jàppale ko macha allah mais dinañ def forte mobilis forte mobilisation CATB incha allah. supporters yi dañ ciy ñëwaat parce que adversaire bi li ñu gis démb Caaroy moom est-ce que ëpp leen ay supporters. ah fii Medina la nag. ah fee fee Caaroy la de. ah waaw Caaroy la waaye Medina moo jur Caaroy xamoo loolu waaw. si Medina moo jur Caaroy si naka parce que Medina daanaka dëkku cosaan la fii moo jur Sicap ni ko Youssou Ndour wooyee jur fépp daal waaw parce que ñu doomu Medina yi ñoo fi jógee di jëndi ay kër Caaroy ay Bambilor ay kër Massar fu booy xool Medina vraiment ñi fi ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ku ci nekk boo leen laajee dinañ la ne am nañ kër ci biti donc moo tax ma ne la Medina moo jur Caaroy ba nga xamante ne daal waa Caaroy moom nañ ñu xaar ñoo ngi ñëw seen kaw waaw incha allah di ñaanal nag suñu rakk ji ndam ndam lu set wicc ci barki Seydina Mohamed ak ci barki sëñ Babacar mi mu yaakaar waaw. ñu lay ziar kilifa gi. ñu ngi lay dellu ziar sëñ bi. tur bi nan la. Baba Ndiaye. seen dëkkandoo wala seen rakk sax laay wax jëm ci combat lu waral seen jotaay ak moom nii. waaw lu waral tey suñu jotaay ñu ngi nuyu ñu fi toog ñëpp particulièrement di nuyu suñu mag Biége Diène bi ñu àndal tey mu ànd ak forte délégation mu ànd si Pape Malick Pape Malick nga xam ne magu euh, Maodo magu Maodo la tey jii li ñu fi indi mooy Cheikh Ahmed Tidiane Ba bu ñu Cheikh Ahmed Tidiane Ba indee fii ba pare après suñu rakk Maodo moo ñu fi indi parce que man yàgg naa si làmb trop giri mi xam na li may wax ànd naa depuis tubaabu joor bu muy bëre ay ñoom ànd naa Tyson ay ñoom rong wala façon mbër bu ne ànd naa moom euh, tey man saa bu ma jógee rek Maodo mii moo ma yëkkati man xam naa ne Maodo euh, yàlla moo ma tiim Medina amu fi noonu. parce que mun na communiquer mun na wax am na yar am na teggin moom ma moo ma yëkkati saa buy bëri damay jóg kapi mii xam na li may wax kapi mii di daj ci moom ay coono yu bëri xam na li may wax parce que dañuy waxtaan tout le temps euh, ma ñëw ànd feex waa Chelsea yëpp waa Chelsea yëpp xam nañ ñu ñu mel si Maodo Maodo suñu rakk la suñu lépp la combat bi nag lu ma siy wax xëy na Reug Reug xamul Maodo quoi parce que bu xamoon Maodo am na wax yoo xam ne du ko wax parce que mun naa ni Maodo mbër yi fi bëri yëpp moo leen gën a assuré bëre. dafa bëgg a moo bëgg a daan kan lay daan non lool lool moom day reebe rek day reebe moo tax ma ne la moo tax ma non dama lay wax man dama xam làmb dama ko dund dama ànd ak Moustapha Gueye ànd ak Giri ànd ak Rock Mbalax ànd ak Tyson bi nekk làmb ñoo ànd mbapat Zallo ñoo ñëpp dama ànd ak ñoom Maodo laa gën a wóolu si mbër yi lap cat rek dama koy ñaanal lap cat parce que lu muy bëre daf ko teg si yoon am na fit mun na bëre te xam na li muy def li ñu koy ñaanal ñu ngi xoolal euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñun Cheikh Ahmed Tidiane mooy suñu leader waa Medina dañu war a xam kuy Cheikh Ahmed Tidiane Ba parce que Cheikh Ahmed Tidiane Ba lu mu dugal fii si ay mooy Medina amul benn leader bu ko fi dugal xëy na wax jee bëri nii rek parce que Cheikh Ba lu muy def lu muy def ci suuf moo ëpp lu muy def si kaw li muy def Medina amul kenn ku ko fi def ASC nga jël may ASC bu nay 2 millions musul am si soir Medina kon nag tey jii ñun suñu problème mooy mu jàppale Maodo waa Medina yëpp dem stade comme Gris Bordeaux suy bëree stade bi nu muy feesee ñun loolu la ñuy wax Cheikh Ahmed Tidiane Ba te mun na ko mooy Messi jaajëf. mbër ma ziaraat la. waaw fay yëpp. ñëw nañ dégg nga ñi nga xam ne ñoom la fi Cheikh Ba yebal comme ni ñu ko waxee lool loo ciy wax balaa ñuy ñëw si combat bi. waaw Cheikh moom comme ni li ñëpp wax rek mooy dëgg quoi. ndax euh, nit la koo xamante ne événement bu ñu mës a am rek na nañu si waaw mais événement bi moom c' est parce que dafa nekk combat boo xamante ne combat derby la ñu soxla ko trop ñu soxla trop taxawaayam kon ni mu daan taxawee waaw parce que ñun moom seetlu nañ sunu ay combat yu bëri dañuy dem ba buntu estade ay doomu Medina nekk si biti nekk si mbedd mi di dab oto oto bi ñu war a dugg ñun pour dugg estade booy Medina yi wër ñu naan ñu amuñu ay billets ba dañuy woo promoteur bi. naan ko suñu a jox ma si nangam billet wala déet te loolu warul mën a am te suñu kilifa bi ku ci dox ay jógo la koo xamante ne ba mu ñëwee ba léegi boo dëgg yàlla sentir nañu jàppaleem si ñun ak suñu ay grand loolu nag kontaan tey bu defee délégation bi même avant mu koy def sax mosuñu am benn bis buñ taxawal rek te moom dugg ci ak lu mënti doon de léegi dañuy ñëw si combat bi parce que dañu gis combat boo xam ne nii combat bi dañ ne yéen ñaar ñëpp combat bu métti la ci yéen parce que mosu ngeen a daanu te ay xale ngeen nekk si buntu yëg si làmb waaw loolu la ñëpp wax te ñëpp wax loolu donc da nga ciy tenir compte rek da nga bàyyi xel parce que loolu du tey rek lañ ma ko mos wax ci làmb man Ablaye man doon naa fi bëri ay combat yoo xamante ne même chose lañ ma doon wax te dañoo ñëw gañe ko avec la manière loolu tam bii tamit yàlla na ko yàlla defee noonu. rëg-rëg ci maanaam buñ ko gisee gis la mu mel ni ki yéen ñaar tamit ay xale yu ñemente ngeen parce que moom na combat bi du yàgg yow tamit nga ne combat bi nu mu mel baax na. non moom dafa changé communication am ndax au début ba combat bi di door a taxaw dafa wax ne dama koy cons nee na day yàggal combat bi loolu la doon wax. ñu dem ba kombaa bi jege si mu ne day gaaw. loolu ñaari wax la léegi man tamit fi mu waxoon man foofu laa koy fekk si o combat bi tempo tempo la incha allah. day day dama ne la tempo tempo la. bu ànd ak avancé fu mu nekk incha allah dinañ ko fa fekk daan ko indi fii ndam li incha allah. diggante Géejawaay no Pikine di moyes wala boog yi mhm. ak Fass parce que yaakaar naa ci mag ñi ba fii yéen a ngi bëre de te am na lu mu ci wax moom. waaw ah, dégg naa ko muy wax ay waxu kaawoo xam nga nit moom dangay am yar sunu papa yi nga xamante ne ñoo ñu jiitu woon muy sunu papa pap kan bi mu ne waajur la ci moom rahmatullahi alayhi yàlla def na mu nelaw yàlla na yàlla yeesal yéen ma ne ci kawam xam nga yooyu soxlawul si ci jamono boobu ñu si ñu siy jaaraat caaray faas buñ ciy joxe ay exemple ñun ñëpp ku si nekk rek mën nga mën nga si ñun ñu fi nekk yëpp fekkee nañu Gris Bordeaux Khadim Ndiaye numéro 2 Gris Bordeaux da ko yenu ba ci kaw dóor ci suuf Xaadim Njaay numéro un Tafa Gueye ñu ñëpp fekk nañu fi Tafa Gueye da ko ñaat Gris Gris ma njoon barki Dembo Njaay Gris Bordeaux la ko dóor bàyyi ko ci géew bi kon bu ñuy wax di muy fàttali lu wax lu yàgg moom na wax rek li mu fekkee te li mu fekkeewul mu joxe respect hmm. nga yaakaar ne yooyu nga fi lim yëpp mu am ci yéen di ay ndam est-ce que loolu du mettil combat bi di samedi ci yow man dama wóorul lu yomb man làmb luy ba am en tout cas li ma la wax mooy làmb ja incha allah la lay metti ak lay neex loolu man maa ko fay indi lay metti ak la fay neex combat bi incha allah rabbi man maa ko fay def la fay metti ak la fay neex yaa ko fay def su ma la déggee ça veut dire yaay fecc lu neex bëre lu neex daan ñibbi loolu nga bëgg a wax wala fecc bi moom dinaa ci jéem rek ne la biir géew bi moom poobar bi man maa ko fay suy. bu fa suyee poobar bi mbaa du yor anti poobar moom. waaw garaawul man na saf rek en tout cas daal na saf. waaw géew bi daal moom dina wuuteeg ci moom ci beneen géew daa ko wax foofu géew la quoi làmb la kàmb gi foofu incha allah. Reug Reug am na loo koy moytoo. non samay kilifa nee nañ waaw ndax ñun consigne la ñuy bëre. te ay xale lañu li ñu tàmm mooy ni ñuy bëree ak ni ñuy waxee du naagu foofu lañ toll bu demee ba toll fu calcul tollee ak ay arrière ak taxaw buñ fa yeggee ñu def ko mais fi ñu toll nii li ñu war a def mooy attaquer koñe gagné incha allah moom la ñuy def. lu tax yëgoo kare ci balance bi. balance bi loolu ay la. man déjà doon naa dégg suñu benn kilifa ci làmb yi ni nee na làmb sutura la. waaw ah, xam nga li ma la wax mënoon naa yéeg si balance bi gars yi gis fa poids boo xamante ne kenn mësu koo gis. da nga yor poids bu jaaxal loo gis si àdduna rek la waaw te te làmmiñ baaxul loolu kese la mais ñun amuñu lu ñuy calculer ñu sax ay ay yenn yenn bagages yi waaw ndax ñun yàlla lañ jiital si sunuy mbir yëpp lépp lu ñu teg rek dañ koy nangu waaw te incha allah ndam lañ ko ñaan te allah dinañ ko am. gis giri toog ci sa droite. gis naa tey tamit écurie Fass yëpp dafa mel ni génn nañ lan nga seq ak ñoom ci koo ci ñoo xam ne dañ ne seen rakk nga ban taxawaay nga taxaw ba ñoom ñett nga mën leen a génne. waaw jàmm ndax man nee naa xam nga nit moom ñetti génération groupement boo gis sportif ñetti génération la mooy mag ñi. ak saay moroom ak saay rakk. mag ñi ñooñu ay kilifa lañ. ñi nga wax ne ñoo génn ñooñu duñ suñu ay xarit ñooñu suñu ay mag lañu. ñu def suñu devoir si ñoom nekk seen sécurité nekk seen suqu topp leen nangul leen kon tey bu ñu amee bis c'est normal sumay morom ñëpp sumay xarit lañ mais mention spéciale nag à Lac Rose kooku c'est mon jumeau waaw waaw loolu yàlla moo ko def rek loolu nañ ci def point xam nga ak ñëpp nag tout le monde dafa junior ñëpp mbër yëpp ci écurie bi uh-huh. bu ñu gisee tamit euh, nit ñëpp génn ay mag ay kilifa génn moo mel ni kii ci li ñuy for faral di for ci wewu béy Gris 2 moo bëgg a téye Flambeau écurie Fass loolu da nga koy confirmer wala. non loolu du ma ko confirmer Flambeau Fass ñun ñëpp koy téyandoo li ma war a defi samedi incha allah am na ay dizaine dizaine yu nekk Fass yu ko mën waaw man maa war a dem man maay dem def ko mais ñi fa nekk ñëpp ñun ñu nekkoon regroupement gëm naa ne koo ci yebaloon samedi bu demee stade day daan rek rek. loolu la ñu gëm ñun ñu nekkoon pendant trois mois di liggéey gëm naa ko keneen ku ma fa yabaloon it même chose day dem am ndam. am ndam waaw parce que dañ ko liggéey. arène nationale dimanche passé Aigri Fass na fa daan. Mhm. lundi tamit defe naa bëri ngeen fi ñaari combat yi ba maar daan. Mhm. loolu yëg nga ko. waaw ba ñu yëg xam nga waxoon naa leen ko premier avant boobu am na yeneen ndam yu si topp dañoo sonal Fass rek si Fass crise ah. dañ ñoo bëgg teg crise force. mais ñun nekkuñu si benn crise est ce que ndam loolu ngeen fa amee bii passé dimanche passé ci arène national est ce que yow da nga koy continuer wala. waaw ah, man chaque année moom Fass moom man chaque année vee laa leen tàmm indi te yàlla mi yàlla miy tracé loolu xam naa ne incha allah dina ko defaat mais Fass moom li ma leen tàmm indi rek incha allahu rabbi loolu laa jàpp ne samedi mooy amaat incha allah. looy mujj a wax askanu Sénégal waaj ak sa adversaire ak supporters yi war a ñëw ci bisu làmb ja samedi arène nationale. waaw di leen wax rek sport moom paix discipline maitrise la waaw mooy jàmm ndax ñun ñëpp ay sénégalais lañu ñu ñëw esprit fair play ñëw ñu foo comme man moom fii Medina aw ma problème boobu ndax di seen ay mbër mel rek noonu lañ mel waaw ku leen yëngalul duñ yëngu dinañ ñëw nag en masse incha allah supporter seen doom ñëw di wax na suma mbokk séeréer yëpp fu waay nekk gis naa taxawaay bi mel ni ko yokk suma ay mbokk taalibe gis naa taxawaay bi bu baax a baax a baax waa Saint-Louis di nuyu waa Touba waa Tivaouane xadaratu Malick yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm gis naa taxawaay bi bu baax di leen wax ne fi jàpp foofu la ba jour ji incha allah ñu dem.